abone leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen wax restez calé câble sur ma chaîne YouTube Partout TV n'oubliez pas de vous abonner et activer et liker la vidéo dañuy dikkaat nag ci li nga xam ne rek moom mooy jàngat yi bi yoon nag mën nañu kii di Juan Branco daal di dellu si waat nag ci procès Ousmane Sonko Adji Sarr gannaaw gi nag mu daal di laaxaale baaraamu tuuma ki nga xam ne rek moom mooy général musaafal ak yeneen généraux yi nga xam ne rek ñi ngi fii nekkat jamono yi ñu toll nii gis nañ ne kat Sénégal mu ngi ci guddi gu bët setagul wante kat dafa am mbir mu nga xam ne rek bu ñu ko fàttee te tamit fàtte ko sax dafa nekk lu nga xam ne rek jaaduwul gannaaw nag moom mii nga xam ne rek moom mooy Juan Branco daal di jot a xamle këne kat bu ñu fàtte ne rek ne saisir nañu justice internationale ci mbir mi nga xam ne rek moom moo xew fii ci diwaanu Sénégal nekkat bu ci réew mi mën nañ ne musiba mën naa daal di juddu ci ki nga xam ne rek moom mooy président de la république Macky Sall ak ki nga xam ne rek moom mooy ministre de l'intérieur Antoine Diome moom mi nga xam ne nag moom mooy Juan Branco yëkkati kàddu yi ni mel nekkat loolee mën na nekk ay daan yu nga xam ne sax dina yegg ba ci ñoom ñii nga xam ne rek ñoo nekk ci biir réew mi te yor fi ay ndombay tànk voyage buñ ko bëggee amal mën nañ leen kaa gantal ndaxte kat moom mii du Juan Branco jot naa xam ne li ni mel nekkat dafa jot li nga xam ne rek moom mooy juridiction boo xam ne rek dafa saisir li nga xam ne rek moom mooy justice internationale ci mbir minimal kat ne bépp dérapage bu nga xam ne rek daal dinay jot a am fii ci réew mi di Sénégal nga xam ne moom mooy diwaanu Ziguinchor nga xam ne rek mën nañ ne fala gëb la ga nekk bi la yoon nag moom mi mën nañ ne dara ki nga xam ne rek moom mooy président de la république nekkat na xoolaat bu baax a baax taxawaayam ndaxte kat réew mi di Sénégal na xam ne dañ ko koo dénk kon nag dafa war a préparer bu baax a baax mbir minimal ñeel nag nekk kàddu yi nga xam ne rek moom mi yëkkati na ko di Juan Branco ci page Facebook am la ko daal di posté di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di way di abonné ba beneen yoon